bismillahi irrahmani irrahim asalaamualeykum wa rahmatullah noo ngi nuyu bokk yépp di leen baal xaq te di baal xaq di jéem a tontu ci ab laaj muy lenn ci luñ mën a tënk ci li alaaji Muhammadul Faadal sottal ci ak nekkam am na lu bari loo xam ne ginnaawam la soog a sotti waaye lenn ci liy sotti ci ak nekkam ba ca jiitu mooy alxuraanul karim ji nga xam ne moo gën a boole jullit yi te sunu boroom wax ne moo ko wàcc ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama te moo koy sàmmal boppam ba li feeg ab jullit ngi am ci kaw suuf si alxuraan di fi nekk ba yàlla nammee mu sotti ci lañ ko dajalee bind ko kon bokk na ci lim sottal dind na ay kaamil alxuraan yu bari bokk ci ñi fi bàyyi alxuraan mu defi des ba faw ñaareel bi it ajjina màkka aj màkk wane ca aw yoon ci ne jullit bu nekk duñu wax ne bu ko mënee rek waaye da ko war a jéem kem kàttanam ba ni muy sottale yeneen yi mu fexe ba aji màkk la ca dolli ko it mooy e, bokk na ci ñi joo loxo ba ay wara bi liggéeyukaay mën a am ca ay jamonoom muy laaj ñam ko war a laaj ay suuf e, liggéey ko ba aw nit yu takku ci ab lim di ca jariñu yooye it ma ngay dox ba fii mu nekk am na bataaxal boo xam ne mi ngi ko bind sëriñ Issa jenn di ko ca yëgal ma Madina mbooba bataaxal bi mi ngi man waaye lam wax ne moo tax mu sanc dëkk ba mooy li tarbiyati wal xidma wéet fa ak njaboot gi defar leen tey ku ca wërsëgam nekk it mu mën caa jariñu bokk na ci nag yim sottal yi ci gën a fës xam naa su Tuubaa mënoon a wax moo ñuy gën a yee ci di sa jaar ak suñu làmmiñ waaye biñ demee ba Tuubaa mosu su koo dégg mu waxit it mënees naa teg loxo loo xam ne dara du ko dindi ci ne moom moo ko sottal ci Touba ba ci jiitu mooy Touba fii mu nekk ca jamono yooya yombutoon a demee nii mu yomba demee dañ daan wax daa sori am na ñuy jóge ci ay dëkk fu mel ni so Ndakaaru naan see Touba daa sori mu mel ni baatub daa sori moom ku nekk ak na mu koy dégge ndax ñaare bare na ku jóge Tuubaa dem Ndakaaru naan g seen dëkk bi daa sori kon fi sore ak fi jege aw déggin rekk la waaye jamono yooyu daal Tuubaa moom nit daana sonn lool door faa dem fekkoon na nag mu am ab raay boo xam ne a Cheikh Mouhamadul moo ko sottaloon ci ak nekkam ànd ko ak taalibe yépp ak njaboot gi waaye nag teewut e, yeneen yoon mën a am yoo xam ne mën naa gën a sori fu muy dem mën a gën a jàppandal ñëw ak Tuuba muy ay loolu mi ngi am ci ak nekkam la ci gën a doy war nag te suñ jamono war caa jël bind mooy tëli yooyu dañ ñëw Touba jógee wetug Ndakaaru ba agsi Touba jàll ba Linguère ba bu yàggutoo ñu jàllale ko maatam muy law di dem ak jële ko kafrin mu ñëw Touba jàll jaar Misra Darou Mouhty jëm ndóoyeen jaar sagata ba Kébémer lompul ci ay jamonoom la sotti kon ci ay jamonoom la Touba gën a ubbiku ci la boo mën a jóge mën ngaa jaar ci ab tali ba ak si Touba te li ci gën a yéeme moom laa doon junj mooy am na dëkkam bu gën a jege Touba ñu koy wax Ndindi diggam diggam diggante pencum Ndindi ma ak pencum Touba mi yées na juróomi kilomètre waaye 2010 la Ndindi soog a amub tali kon waa jamono war nañ cee jàng ci ne ki yor kuddu gi di séddale daa war a seddale ba ña war a am am bu desee baax na su desut mu mar loxoom waaye ci tu ci ak nekkam la sottee dugg ci sam néeg na néeg làmp yi na ràññ kon ci ay jamono la it la fi courant bi ñëw courant boobu itam euh, la ko yóbbu ndindi ca yooyee jamono natt ba daa ëppoon natt ba daa ëpp te moo ëpp moo gënoon a yaatu moo gënoon a ëpp aw nit ca yooyee jamono kon ci loolu fi mën sefee jàng ci ne courant bu koy yóbbu nañ seet fa nit ñi gën a bare rek ñu yóbbu ko fa loolu moo ko jàllale ndindi dindi boobu moo ëppoon ay kër yeneen dëkk yi war Touba courant boobu doon ñëw Touba it ci la Mbàkke Njaaréem mag dëkk yi ci des yëpp fa la jaar ñu soog fee amaal ñu soog caa ba ci nduloog yëpp waaye ci ay jamonoom it ci la Touba ami mbedd nga xam ne kër moo jëm da génn sa kër ne coow ba war a àgg làqar ci dugg kër diw waaye ci ay jamonoom it la nit du dugg ci këram daadi di biij ndox mi xel li muy ndox ndox moomu it am na ca lu kiimaane du kiimaan goo xam ne dañ koy nattilante muy xar baax waaye xel mu rafet la ba forasub daru mën naan bënnee di xel li ñu indi tiwo yi mu dugg ci biir Tuubaa ñu def robinet mbedd Senghor da ko ne ndox mi kat liy doxal wata yi moo koy wëgg essence wala gasoil mu ne ko lu ciy xalaat mu ne ko day jaay de balaa kenn nan di ndox moom lañ ciy def mu wëgg ko kon da ngay bàyyi ñu dugal ko ci budget bi gouvernement bi di doxe suñ fallu ne ko déedéet goj ak baag boroom kër moo koy jënd teg ca ëtt ba ku bëgg a rooti jël boo rootee ba feesal dellowaat fa ci digg ëtt ba keneen jël ni sa ni yow ndax bu ñu ko tegee ci yenn yoxo ku ca bëgg a xiise moroomam mën na koo xiise kon ñàkk a fayum ndoxu Tuubaa ca loolu la bàyyi ko xaw ma nag ñàkk fayum ndoxu Tuubaa fu muy mujj ndax jamono ba mu koy def baat ba mu yoroom it ba mu yoroon jaar na ci Sëriñ Abdul Ahad jaar ci sëriñ Abdul Xaadir jaar ci sëriñ Saalihu jaar ci Alhaji Baara jaar ci sëriñ Sidi Muxtaar ba ci sëriñ Muntaxa mi fi nekk yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal loola mooy cosaanul euh, ñàkk a fayu ndoxu Tuuba goj ak baag boroom kër moo koy jënd te moom nangu woon na bañ ko ne yaa yor njaboot gi nangu woon naa jiite njaboot kon lam jàpp woon boppam mooy boroom kër boo xam ne moo war a jënd goj bi ak baag bi di rootal ñëpp waaye ci ak nekkam it ci la Touba amee fajukaay fajukaay yu yees yi nga xam ne mooy kër docteur poste bii nekk poste santé bii nekk 28 te ñu tuddee ko soxna Fati Jaxate way juri Serigne Saalihu ci jamono Serigne Fallu la fi nekkoon ñu doon ko wax dispensaire am na tur yu bari yu fi jaar waaye ku tudd aañ waa Touba mën nañ ko xam kon ci ay jamonoom ci la Touba amee ab fajukaay fajukaay yu yees yi ñooy wax kër docteur waaye ci ak nekkamit la Touba amee woon ab poste poste boo xam ne da ngay bind bataaxal dem fay tuuti ñu yóbbul la ko fa nga ko bëgg a yóbbu ak fu mu ne ci àdduna bi bataaxal yooyu di fa jóge di ñëw ak i mandat ay télégramme ñoo ko wax télégramme ak yooyu yëpp ci jamono yooyu dafa nekkoon moom mi ngi fii mi ngi nekkoon fii ci 28 am na benn station bu fa nekk léegi. waaye ci ak nekkamit ci la Touba amee jaboo xam ne daf caa joxañ lu nit ñi di jàng itam muy ja mooy marché marché boo xam ne ba mu koy tudd euh, daa bind ocase ocase ñu naan mooy ba nekkoon makkaak mu ne déedéet boobu okaz la okaz ak okaz du benn okaz ni ñu koy binde ju jëkk ja okaz bi ma wax léegi ba nekkoon màkk mooy ayin ngay def def kaaf def ëllif def fa comme sirata nga def ci ab tomb taa googu nekk sirata nga def ci ab tomb muy okazu waaye moom jim jim bind mooy ayin kaaf ëllif mu xëcc kaaf gi ak raa guñ tomb ca kaw googu ukaas la muy tekki mooy bant boobu nga xam ne moom la ñi dem ba ci mag wala ñu am gàllankooru tànk dolli koo ko def ko ñetteelu tànk bant bant boobee moo tudd ukaas ñu koy wax aw jàkk wala aw yat rek wala ab tom lam ci jublu mooy li tax sëriñ bi sañ ci dëkk bi li taxoon mooy jaamu fi yàlla ak liggéey fi mu ne kon nañuy liggéey ca jaba mu doon bant boo xam ne day dimbali nit ki bu julli jotee mu dem julli ci ci jumaa jooju nga xam ne ci la jëm si woon ci ak nekkam itam ci la Tuubaa amee jumaa joo xam ne moo ko ràññale ak dëkk yu bari néew na ci senegal dëkk boo xam ne bu ñu koy tudd dañ cey tuddaale jàkk jumaa Tuubaa mosquée turu officiel am mooy Touba moske nga xam ne Touba gone mën naa am beneen dëkk bu nekk amit waaye dëkk boo xam ne dañ koy tudd tuddaale juma moom it ci ak nekkam la sottee tàmbali woon nañ ko ñaan këyit jamono suñ Touba borom Touba tàmbali ko jamono Cheikh Mahamadou Moustapha ba El Hadj Baara mi nga xam ne fekke woon na te bi Serigne fa luy jël liggéey bi gannaaw suñu mën Moustapha am na lu ëpp ñaar fukki at ak juróom. nee na am na ci wet goo xam ne ku xaw a am taxawaay tuuti bu yëkkatee loxoom laal ko fam yemoon waaye am na ci wet yoo xam ne tam yi ci gën a bari soo daqee bëy fitnaal ko mën na koo tëb jàll foofu la fekk jumaa ji waaye moo ko ànd ak taalibe yépp kenn ku ci nekk def lam man ñenn ñi yéene ba le 7 juin 1963 dëppoo bisub aljuma mu woo adduna bépp àdduna bépp sax yaatu na ba ëpp waaye waxin la mbooloo daal daje won naxa ñii ci diina lañuy yëngu ñii di yëngu ci nguur ba sax am na ci kook ma nga jóge woon Nigeria ñu di ko wax Ahmed Bello kon daal loola it la muy tekki mooy loxoom tàllaloon na ko ñu baree baree bari ba waa bitim réew Ahmad Bello moom fekk na bi ñu jullee jumaa ji ñi ci biir réew mi moom jëlal nañu leen kuy jóge ba Nigeria ci yooyu jamono di ñëw di fekk si jullit jumaa ji moom ñu ne si biir réew mi waxaale wu ñu leen seeni tur yëpp xamees na ko waaye jataay bi du ko maye. na ci yim sottalit euh, loo xam ne tudd naa ci njëlbeen aji na Makka waaye ci ndimbalu sunu borom it jàpp na ci ba mbooloo mu bari mën a dem jooxi seen farata jooju te am na ko mos a ñëw ci jamonoy Alaaji Baara boobu moo fi nekk xam naa ne kooka jikk koo wax daa ñëw ne ko dama dëkk ci dëkk boo xam ne ko ajiwul makka doo taxaw ci sàppe su jëkk si ca jàkka ja sakkantuma di am kàddu ca pénc ma Alaaji ne ko nga ne mu ne ko noonu la demee mu ne ko yow de bu fekkee dund nga ba aj ñëw danga nga dem Makka te li ma gën a wóolu mooy kooku jëkkut wax lu mel noonu bëkkut a jëkk a dem jëkk Makka ci kooku anam lim bi mu yóbbu Makka it xam naa ne ku ko yàlla xamaloon lim bu takku lay doon ñi nga xam ne it seen bët daa xonq ñu jaaxle jaaxle goo xam ne yàlla rekk lañ ci yaakaar waaye ay sabab mën na ko sottal kenn xamul ñaataa ñëw ci moom mu fajal leen ko ko daa far ay ronkoñ dal la koo xam ne yaakaar dawut tase fa moom te moo ne taxu ko woon yorlu ne gàññ nag ndax eh, ndax yu bari yuñ ci mën a wax ak yoo xam ne mu mënu si ko wax waaye daawul wax négal ba suba daawul wax négal ba ngoon soo ko fa fekkee fa saasa la sa aju di faju ñi jaxasoo woon ak moom lool suñ Mamoor nee na ma euh, rahmatullahi alayhi am na yaar yaar euh, ñaari baat yu mu daa faral di jëfandikoo yoo xam ne kii muy waxal dana xam ba xam li muy tax dana sotti léegi waaw wala déet su ne su ko waxee yitteem mu ne ko sallaahu sallaaw mooy sha allah dana xam ne dana sotti tey su ne ko incha allah nag bee boo nga ñaanlu te xam ne nekku fa waaye duna demal ba ngoon duna demal ba beneen waaw ak yu bari waaye ku ma ku mënoon ko lëre la ndax euh, bi ñu demee ba jumaay Tuubaa ji noppi daf ne kat faw Mamour jaara ñu njukkal ko jox ko àllarba daal di tawaxal Mamour Diarra ci pénc ma fekk ko fi waaye jariñoo nañ ko lu yàgg mooy jumaay Mbàkke Xewar jee moo ko jëkk a tabax gannaaw bi suñ Modou Bousso Dieng yeesalaatoon na ko waaye waa Gédé noona amoon na yéene it lawal ko fu sampub Sëñ Tuubaa nekk gannaaw jumaay Tuubaa ji noppi na te ñoom ak ñoom ñoo ko bokkoon mu lawal ko fa ba foofa am jàkk booree am jàkk booree am jumaa am jumaa kon daal njariñul nit ñi moom ràññiku na ci loxoom lool bari na it lu ca sotte moo jëkk a jëlit ay ndaw jële leen fii Sénégal jël ci alal yi alal yi murit gi yóbbu leen ci ñu wuti xam-xam am na ci ñoo xam ne bu ñu déggee seen tur danañ ko xam ak it seen i tur it ñuñ xam lañu am na ñu si baree ngi dund sax ñi si ëpp ngi dund ñi ci ëpp ngi dund waaw kon ku gisoon fu sori la waaye suñ muntaxaa it euh, xafidahullah tollanti na ko ndax jël na moom itam diggante daaw jéeg ak daaw ak ren ji ab lim ci doomi dëkk bi ak doomi jullit yi fexe ba ñu mën a wéyal seen àlluwa yaatal seen gëstu yàlla ko yàlla may gudd fan ak wér kon daal bu ma ko bëggee tënk noonu euh, bari na lool lu sottee ci loxoom la te bu tuubaa mënoon a wax ci làmmiñ suñu ko laajee mën naa wax sax yoo xam ne waroon naa ko tudd te fàtte ko waaye ab dëkk su fekkee yoon ya fa jëm ci say yoxo la sottee te seddu ca benn cër courant bañ fay taal ci say jam ci say loxo la ñëwee ci dëkk bi ci sa baat euh, defal ko ay mbedd defal ko ab ja defal ko ab fajukaay defal ko post te booba am na ci dëkk yu magaale sax yoo xam ne amaguñu woon post kon village bu njëkk am post ci Sénégal euh, ku ko xamit mën na ko caa dolli waaye man moom laa ci xamagoon waaye it am jaamukaay yàlla boo xam ne lañ la woon la sëñ bi bind na moo taxoon moo sañ ci dëkk bi ku tuddaale Touba tuddaale ko ca muy Touba mosquée noonu na tudd officiellement kon bokk na ci lim sottal euh, moo waxoon ne jëlee naa ko ci ñu bari <clears throat> ñoo xam ne fekk nañ mu wax ko ne bu ma ci noppee moominatu ci bopp boppam dana ko mën a jiit soxna moomin rakkam moom suñ tubaa maanaam nosu boo xam ne ku war a jiitu day jiitu ña ca war a topp topp ca muy def la war a def ñu topp ko ak lañu war a def topp ci ginnaawam euh, kon lam waxoon rek mooy feeñaat foofu néew na ci senegal foo koy tudd te xamee su kenn xamu ko fa mag ma fa ne daan la bu dee mag tuuti man ba ma fa demee ka kooka mag naan la sama baay ka kooka mag naan la sama maam lam la muy firndeel mooy lam xëyoon bis wax ne man may Sénégal may Sénégal ji nag limale na ci ak bokk bokk mbokkum Sénégal gépp la limale na ca bokkoon na ñëpp lay firndeel Sénégal ci Sénégal gu mujj gi ginnaaw 1960 mooy tampon yi nga xam ne dañ koy tampon ne te nguur di ko def ñaare danañ ko def ak guy danañuy dégg it ñaan Sénégal di leen wooyee gaynde guy moom ak gaynde kenn ku ci nekk daa am spécialité ñu xam ne guy léppam njariñ la ndax danañ toog ca keram ga toj wuyam wa def ca cafaay xànc cëggam ya cëggam la raw ci ay buum walla ñu ràbb ci ay wasan waaye it guy kenn yëbu ko mën ngaa dégg wàcc leen garab gi di ko tere gone yi ba mu des wàcc leen guy gi daa jub xocc ne coow kon bu nee maay Sénégal it guy bokk ci ay màndargaam jàngate ngi foofu waaye Sénégal gaynde dana ko mandargaal ni ñuy wooyee yeneen réew yu bari moom tur woowu lañ ko tànnal xawma ku ko tànn ak lu tax mu tànn ko waaye gaynde moom itam dug neen ndax bokk yi gaynde ku gore la ku gore gaynde yàpp dong dong dong lay lekk te gaynde la muy jàpp di ko jëfandikoo du fekk yëfi jàmbur mu jël ko du fekk lu keneen yor mu nangu ko ci moom la muy jëfandikoo da koy jàppal boppam te bu ca jëfandikoo ba noppi it du ko denc fenn day bàyyi kenn ku keneen ku ko soxla ñëw jëriñoo ko te it du ko wuti di ci sonn day néeg ba soxla ko lool ne ñaadam ñaadam taseek moom bu ko daqee jàpp ko baax na bu ko dàqut xaaral yàlla xiif du ko tax a fortaatu mukk am ñax te gis naa ko ko xam ku dëkk Jéenu Jala Jéenu Jala boo jógee Tambacounda jëm Jala koto nee na ma gaynde mën naa lor doomu aadama waaye du ko jëfandikoo kon bokk ku am ak wegu la te xam boppam lool nangoo muñ nangoo bale te it gore ci alalam ba bu jëriñoo du bañ keneen ko jariñoo kon bu nee maay Sénégal foofu am njàngat a ngi moo xam ne buñ tegee suñ tànk ak suñ loxo ci yii nga xam ne lim nañ ko ak yu bari yu munta lim digganteem ak nit ñi moom ak njariñam ci nit ñi moom gannaawam sax la gën a fés bari nañu koy tudd lool naan dañoo ñaan yàlla ci barkeem yàlla nangu seen ñaan te xamuñu sax fu mu nekk ndax xam naa kenn ci njabaru suñu fallu gi koo xam nee na ma am na ko ko laaj fa Parcelles Assainies ni ko waaw suñ fallu bu fi bàyyikoo kuy doon xalifa général mu ne ko suñ lu bàyyikoo na fi bu yàgg mu ne ko yow xamoo ci Tuubaa lu bari mu ne ko ah xam naa ci lu bari ndax moo ma jur suñ boobu nee na waaja laaj na ko ñu bari ne ndax wax na li mu wax noonu la waaw wala déet ñu ne ko dëgg dëgg nag mooy way jëram mu soog a nangu ni suñ fallu nekku fi kon boog loolu daal lañ fi amoon ci tënk di jégglu bu fekkee am na lu ci lu ñu wax loo xam ne laal naa ci kenn te waruma ko laal waaye in uridu illa al islaha mastataatu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu